alors conseil constitutionnel bi muy expliquer démarche am dafa convoqué article 103 ak article 27. daf leen daf dafa ne daf dafa ne article yi la ñu violé. waaw euh, est-ce que par par en annulant euh, ces ces ces ces deux décrets est-ce que conseil delloowul askan bi li mu moomal boppam parce que askan bi ñoo def voté 2016. Euh, ci voté constitution boo xam ne dañoo dañoo ne euh, dafa am dañuy muur euh, xamul lu may woowee clause d'éternité dañuy dañuy dañuy rendre inviolable xaw ma ndax mën naa ko ah, waxee noonu li nga xam ne moom mooy la forme républicaine de l'État la durée et le nombre de mandats ñu ne lii kenn mënatu ko soppi bu fekkee ne jaaroo ci référendum donc conseil constitutionnel dafa delloo peuple bi waaye am na ñu ne conseil constitutionnel li tax décision bi import am am benn importance bi dafa sauver la démocratie sénégalaise dafa lustrer la vitrine de la démocratie sénégalaise. def na lu raw loolu na def ëpp na loolu parce que cest n'est pas la première fois du tey le conseil constitutionnel mos a annuler loi est-ce que mos xam nga loi bu mos a hmm. xam nga ne xamoo. loi constitutionnelle. loi rek mu doon. bàyyi leen loi constitutionnelle loi constitutionnelle exception la le conseil constitutionnel ne pas fait pour vérifier les lois constitutionnelles le conseil constitutionnel dañ ko dénk ne ko da ngay seet constitutionnalité des lois waxuñu ko seetal la constitutionnalité des lois constitutionnelles constitution bi génneel article 92 xaw ma 80 nangam 92 constitutionnalité des engagements internationaux, conflit de pouvoir entre exécutif et législatif, Alors, et ensuite les exceptions de constitutionnalité devant la Cour d'appel et devant la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des, des lois, et des engagements internationaux. La constitutionnalité des, des conflits de compétences entre, entre le les pouvoir exécutif et, et, ainsi que des exceptions d'incompétence soulevées devant les cours d'appel et la cour de cassation et la cour d'appel ou la cour <laughs> de ou la cour suprême <laughs> le conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République conseil constitutionnel kenn neewu ko vérifier les lois constitutionnelles mais quand tu dis que man man dama war a vérifier loi si pouvoir yi ma refa li le conseil constitutionnel juge la régularité des élections nationales. et des ah, consultations référendaires. et un programme de résultats loolu le pouvoir juridictionnel. les élections c'est le pouvoir juridictionnel. conseil constitutionnel wax na ci itam nee na man la constitution bi jox ma régler lu jëm si élection yi wax na ci itam mais léegi constitutionnalité des lois yooyu nga doon wax loi constitutionnelle je di les lois et en général c'est les lois ordinaires. les lois ordinaires les lois organiques mais pas les lois constitutionnelles alors c'est pas la première fois que le conseil constitutionnel euh, annule une loi nañ ma wax kaña la la première fois bi tey c'est la deuxième fois. la première fois c'était est-ce que dégg nga ko fen wax ci ban télé. fenn. ci ban nit. ci kenn. moo tax ma ne la booy discuter droit ak atte. <laughs> da ngay seet ñu mos a atte yàpp kooku mooy juriste mooy la recherche scientifique du droit kenn du jàngale droit. ñoo maa ngi at jàngale bii atte c'est xooluloo yi ñu atte yépp ci conseil constitutionnel par le conseil constitutionnel da leen di boole benn par benn yépp di leen comparer alors conseil constitutionnel en 1993 annulé la benn loi. man la ci noonu. xam nga xamoo ko xam nga loi boobu lan la. Ah. contre procès bu dundoy gagné. ah bon waaw ah, waaw maa fi andi rabat d'arrêt rabat d'arrêt dundoyee tax mu am fii maître Doudou Ndoye ak maître Moustapha Ndoye avocat la cour ñoo tax rabat d'arrêt am Sénégal. en 93 4 ah 93 92 93. yu mel noonu c'était quoi. dafa amoon procès bu rëy boo xam ne ay sénégalais la concerné ñu def procès bi contre Air Afrique international gagné procès bu rëy topp procès bi état du Sénégal comme que mu ngi woon si biir Air Afrique mu jàpp ci contre nous di xeex contre ñun pour ñu mën a gagné. ñuy daanoo ko jóg di daanoo ko jóg def yëfu avocat ba daan leen ba cour suprême ñu daan leen ñu tëdd ñu def lu nekk tëdd xam kon jeex na fay rek des gouvernement Sénégal dem assemblée nationale ne ko wateel loi bii mooy mën nañu annuler décision au cour suprême hmm. ñu wote loi bi jox ko ministre de la justice mu bind cour suprême ne ko procès bii Doudou Ndoye gagné recommencer ko en fonction de telle loi man maa yóbbu loi bi conseil constitutionnel man sama bind wax sama signature assemblée nationale annulé loolu mooy rabat d'arrêt assemblée nationale ko daal ne nag man nga def rabat bu leen neexee gu bees mais li xës ba xew ba pare li xew ba pare doot leen si dellu si di ko rabat d'arrêt mun leen ko changer kooku annulation loi la c'est la deuxième fois am na ku nekk fii ku doon dox si benn tere c'est la première fois que le conseil constitutionnel annule une loi dañu def ndànk laaj am njàng am njàng nag dafa diis te dafa xóot dafa metti ku nekk sa domaine man di ma dugg si avion xaw ma nu mu toll wante pilote bu yox dama naan nem la ma feebar xaw ma nu mu toll si damay jàng livre médecine su ma feebaree nag pour xam lu mu wax mais bu docteur bi waxee ma ne nuut daal di noppi